liste li na xam nekk moo di Pastef. waaw xam nga wax dëgg fa yàlla loolu moom ñun bëgg nañ ko quoi bëgg nañu wax dëgg fa yàlla te yàgg nañ ko bëgg déjà nekkoon nañu candidat élection yi passé hmm. élection yi ñëw aussi bëgg nañu nekk bëgg nañu bokk ci list yi te bu doon suñ sago aussi euh, bu doon suñ sago ci liste bii la ñuy bokk si ñaar ñii. suñ la di nga ko ci ñaar ñii su ma ànd ñoom. Hmm. di nga ñi jiital ma fu ma yëbbu même bu ma yëbbee Ziguinchor maa gañe ko parce que man ak ñoom dañoo bokk projet bi. Hmm. dañoo bokk yoon bi man ma ànd ak ñaar ñi liggéey dama ci am fierté c'est la première fois sama histoire àdduna ma jël décision di ànd ak président ba taxaw di koy fësal si ab télé. c'est la première fois sama sa ku ma xam-xam na ne ma damay opposé wu rek si opposé wu de laa dëkk. Hmm. parce que dara doyu ma. Hmm. mais ñii dama commencé ànd ak ñoom ñi nekk président ànd ak ñoom campagne ba yàlla def ñi gagné du ma genre nit buy jiital nit di ànd ak nit mardi di ma na ma lay faqastal du ma genre nit boobu. ñi mm. ma taxawee fii dafa ànd leen pour ànd ak ñoom couleur laa demee ak ñoom nag ak ngor président Diomaye ba mu nekkee président ba léegi tegu ma ko bët président Ousmane Sonko ba mu nekkee PM ba léegi ma ko bët mais téewul tey laa gën a am sañ-sañ jàppale leen. alors c'est mi ngi noonu. suba seen événement bi lan ak lan exactement le bilan autour de ces 100 jours. bon moom euh, franchement de moom euh, fetu sénégalais Si la quoi su ma nee sénégalais lan la nga jël nit jox ko pouvoir bi muy doxal doxal doxal doxal doxal doxal am 100 jours mu jël am ngor am coloré. ne ah man kat ñima denkon rew mi 100 jours matna xaarama xaaral ma demaat ci ñoom nemmeeku leen président Diomaye mënul def kër gu ne mu duggu fa ci senegal ni si diaspora bi mais man na taxaw ci ben télé site yëpp tegandoo ko mu taxaw wax senegal yëpp gis ko mu nuyu senegal yëpp yëpp ma ngi lañu nuy di sante di wax li nga xamné peut-être mom la ko Sénégalais di te gëm na suba inshallah allah Sénégalais du mer. te wax naa la ko fii da nga noonu waxoon naa la ko. Hmm. ñay mer wala ñu taxaw di attaqué mooy ñi nga xam ne mooy mécontent yi. Hmm, ñoom Bougane ak Thierno Bocoum. non du ma tudd du ma def sotti. du ma xam naa loolu. ñoom suñu paree ñu ngi préparé effectivement. effectivement xam nga rek di wax. effectivement moom laa wax ne ñi nga xam ne peut-être moom bëgguñu ñi nga xam ne peut-être parewuñu ñi nga xam ne peut-être ñoom. Euh, hmm. euh, euh, toroxtaane ju président lañ la ñu xool ñooñu danañ génn wax lu ñaaw. alors c'est merci beaucoup même président ni waxul waxagul nii sax ñooñu dañ ñu ngi pré ñu ngi wax dèjà lu ñaaw dèjà rek euh, bëri problème euh, maanaam ñeme fitna. Hmm. bëri histoire rek weesuwul yow sa président yow sa président ne damay génn par exemple tel euh, vingt heures. Hmm. yow nga ne da génn vingt et pour critiquer critiquer ko. xamul baaxul tamit nañu rafetal tuuti. c'est te dafa am lu Sénégal yi mbir benn affaire bu opposition bi réeree mbir mu opposition bi réeree mooy ñoom dañoo jàpp ne. pour nous dire que nous ngay commence critiquer ces deux personnes. Ah, c'est pour exister. c'est pour exister. Hmm. c'est pour faire le buzz. léegi le buzz ak existence compétence la dynamique engagement ci xol ci amour ci mais pas dit faire ay affaire qui ne ni la alors merci beaucoup vieux man duma ma toog fii tamit di koy wax mais li nga xam ne chaque fois damay wax li nga xam ne mooy njëriñu réew mi. Hmm. parce que wax naa la ne la man du ma porte parole gouvernement réew mi du ma euh, euh, man ak Jomaay bokkuñu ndey ak baay Jomaay euh, lenn kese la mooy sama président la. Hmm. ba pare mu nekkoon sama collègue si même coalition ñu bokk coalition malgré nag moo jiit sama coalition. Hmm. président Jomaay man bàyyi ma ba coalition bi existe may doog a ñëw man coalition ñëw naa ci ba ci si ñëw si cappaandaw ci ñëw yu njëkk ya. fekk la merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf monsieur Thiam ñu lay jaajëfal bu baax a baax moom mu nekk li nga xam ne moo di ñiitu union model euh, union pour un Sénégal modèle. di ko mhm. jaajëfal bu baax a baax baax mu tari rattaché aussi euh, si coalition mai 2024 li mu nekkoon te seen émission le curseur de fes émission bi nga xam ne itam dañuy dalal euh, c'est renommé naanaan li nga xam ne itam kenn doon leen présenté te fii si espace lanano politique bi. On se donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah. Mais en attendant de cela, dans quelques instants, vous avez une émission Le Point de l'actu je serai en compagnie à ki nga Serignan. bonne fin de soirée à tous et à tous sur Sénégal 5 TV je rappelle que l'information continue sur sénégal5.com bonsoir CEFAS, le centre de formation africain du Sénégal. École, alternance, école-entreprise, stage professionnel. Reconnu par l'État du Sénégal et le Centre international privé européen des études professionnelles, CIPEP des écoles internationales. Le premier centre de formation privé au Sénégal. Une école d'excellence et de référence composée de deux départements. Un département des sciences de la santé et un département de management et technique. Nos filières en santé, infirmiers d'État, sage-femme d'État, assistant infirmiers d'État, analyse biologique, délégué médical, vendeur en pharmacie, secrétaire secrétariat médical, biologie médicale, aide-soignant, nos filières en management, transport et logistique, commerce international, transit douane, gestion des ressources humaines, comptabilité et gestion, secrétariat bureautique, hôtellerie et restauration, marketing et communication, informatique de gestion, gestion des entreprises, banque, finance, assurance, journalisme et communication, qualité, hygiène, sécurité et environnement, marketing digital et nos filières en technique, génie civil, génie informatique, génie électrique, génie mécanique, électromécanique, électrotechnique, agroalimentaire, réseaux et télécommunications, infographie, développement web. Nous proposons aussi des diplômes internationaux sur la base d'un partenariat qui nous lie avec de grandes écoles marocaines et canadiennes. Nos diplômes, certificats professionnels de spécialisation CPS, brevet de technicien BT, brevet de technicien supérieur BTS, bachelor professionnel, licence professionnelle, master professionnel. Nous garantissons à 100% un stage à nos étudiants car nous sommes en partenariat avec de grandes entreprises, les plus grands hôpitaux, districts et postes de santé du Sénégal. Nos formations sont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 de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à nous sommes au Sénégal.